je n'ai pas compris que les gens ne sont pas intéressés aux larmes de Sadio Mane après un match ici mu de di non non ça dit que man dama xaaroon qui presse au Sénégal Nous avons affaire boobu lan la ñu fait l'a pourquoi après le match Sénégal m'a gagné d'accord Après le fin match mu de ci terrain bi man journaliste damay dem seeti ko ne ko bon gis nañu nga marché bu jeex nga sëgg di jooy lan la pourquoi tu as pleuré donc jusqu'à aujourd'hui xaw ma lu tax mu jooy mais li tax mu jooy moom am na raison Sadio doful amul ay rab dafa jooy yaa ngi raison li ko jooyloo duñ seet lan la luñ ci mën def ñu def ko ci ñu bay ko noonu mu dem ak ay jooyam. ancien international nga woon joueur nga yow ci yow lan nga japp ni mom moko ko non li nit ci di wax. gis naa ci ay man invité nañ ma ci plateau télévision ma gis ay reportage nit ci di wax na non bu nekkee Liverpool day xaw bu ñëwee fi day tricher day def li du jouer bu baax est-ce que c'est ça possible. pression bi. waaw est-ce que waaw est-ce que c'est ça. je n'en sais rien mais ça peut être ça. ou loolu war na bokk ci li tax mu doon jooy mais wóoru ma ne lool la te comme man du ma ko jege du ko gis mënu ma ko laaj su fekkee ne biñ nekkee fii moment bu muy jooy ñu am xelu ne waa kii xale bi tax muy jooy nga woo ay internationaux ne leen waaw mais xale bi d'après yéen kii lan ma ko war jooy loolu nii man ma wax li ma wax nii léegi xëy na loolu la la la nanguwul Nous avons wax ne dafay tricher te tricher wul effectivement man Yatma Diop mosuma gëm ne Sadio day tricher mais li tax ñeneen ñooñu di wax ne dafay tricher dañuy gis ne foofu pour ñoom Sadio joue très bien là-bas mais bu ñëwee fait du jeu bu mais est-ce que c'est les mêmes conditions de jeu c'est pas les mêmes partenaires c'est pas le même environnement c'est pas le même terrain c'est pas la même qualité de terrain c'est pas le même public c'est rien du tout tout est différent yëpp ci la bokk ci loolu yëpp partenaire mutuel du partenaire l'environnement environnement bi raisons, raison yi bokkul fii drapeau les salaires, fële salaire am lay